Jump présente le combat de choc le 7 mars en Gambie. mbokk yi jamaïcain moom moo mars foofee ca Gambie combat bu mag bi war a am ci diggante building ak Boy Balla drapeau Rocky Malick maire bu Banjul. bébé xar ñu war faa ak amical mu nekk drapeau Idrissa Ndiaye surtout ak Daour Mbaye. Malien bu Baara war faa jàkkarloo ak Ama Baldé bu Serekunda drapeau Pape Malick Doumbia Reug Reug war faa jàkkaarloo ak Lion drapeau Mouvement Action gaz dina fa jàkkaarloo ak boy nawek volume dina fa jàkkaarloo ak T-Max waaye bébé soldaaru baay dina fa jàkkaarloo ak bébé kolobaan artiste itamit kombaam ak ki nank ci bës boobu la waaye mbokk yi jameekee yemu fa ndax face to face bi war a am ci diggante Leket ak France dinañ ko xaar ci bës bi Balla Junior ak Eumeu Sène dinañ fa jàkkaarloo waaye invité d'honneur bi jameekee mu ne le ministre des sports Matar Ba le président du CNG Bira Sène honorable député Fada Diène itamit ci invité yi la bokk ki nga xamante ne nii moom mooy Mbaye Ngom directeur cœur de ville bu Kaolack association des promoteurs de lutte au Sénégal mbokk yi dugg bi ñaata la jamee kenn tribune VIP 300 dalasi tribune amateur tribune supporter 100 sponsor leader BMG Property Helcom automobile White House Residence Nice am site by Pullo waaye yemu ca jamaïcain dina ci sargal doomu Sénégal bi l'international sénégalais Papis Demba Cissé cëy la mars foofee ca Gambie léegi ma laaj la tamit ci bëri simple bi nga xamante ne yaa ngi ci ak say naataango moom Mamady Ndiaye moom ñaata yoon ngeen mën. Mamady Ndiaye li ñu bëri bari na nag pour ma jàpp ko il faut ma jël suma temps parce que moo ëpp sax lim ma daan waaw. Franc ñaata yoon ngeen bëri. nañ lu bëri moo ëpp lim ma daan mais jàpp jàppuma temps ñaata la ñu bëri. gisee carrière am. macha allah rafet na rafet na champion la moom tamit wax dëgg caaxaanewul lamb mu ngi koy jox gi dam ba mu mot waaw. Serigne Ndiaye numéro de champion la ba tey maa ngi fàttaliku bi may jël poids lourd seen dëkk moo jëloon raw gadu gi njaafat ñu bari dañ may naan sax parfois mu daan ma ñu may naan mu ñal moo la mag fuuf to seedal naa ne dem naa ji jël poids lourd njaafat ci ne mu jëloon raw gàddu bi si benn booy bu dëkk suñ dëkk. maa ngi naan gars yi ma àndal ma ne leen kee ma gis nii fii ak ñaari at ku fi ñëwaati fii di nga ko taggu. lañ ko doon mu ñal moo la mag. waaw non def may daan ñu bari di ma naan mu ñal Serigne Ndiaye moo la mag. mag waaw. mag ci aas. voilà ci aas quoi. est no man maa ko mën a mag parce que débutant am dama ko xam nii laa koy xoolee bi may dem jaafaat muy doon xale bu njaw amoon na yaram nii nag mais de lay leer ni xale bu ndaw la boobu man poids laay def muy def raw gadu moom dina seetaan li xam na bu baax li may wax waa lambu jooju raw gadu bi la jël ma jël poids bi waaw. non euh, intéressé wu intéressé wu ma mais moom bosam bori lu bari noonu daan na ma kaat su ma juumul ma daan ko benn yoon waaw. rëg-rëg. kooku moom il faut ma jël su ma temps di noter li ñu kooku li ñu bëre dafa bari waaw bari na trop li ñu masinil bari na li ñu daanante bari na waa dafa mel ni dem ba complicité am seen diggante yéen ñaar dafa mel ni da dem ba am ay relation non pas relation. ngeen fësalul. <laughs> demeewul noonu nit ñee gisee woon noonu rek mais dañoo demoon ba xamante bëre tamit parce que champion booy bëre booy takk say sengoor rek kee taxaw ni da lay leer ne kii fii lay mone surtout maa nag ngeen bëre lu ëpp dix fois xam nga da ngeen di dem ba ne da ngay xam sa morom fu mu mone boo boo demee da ngay tëj foofu loolu moo nekkoon suñu diggante parce que si fa fu ñu mosoon a jàppante wala masi gi tuuti bu ma bu ma xasee jàpp mënu maa rek def may daan. moo taxoon ñu buñ tasee ku ne tëj lambam ba du ñu mën a bëri nit ñi ni ñu bëgg quoi parce que ku juum daanu ni ko papa mag si di waxee foofu lañ toll woon. combat nga jàppale ko contact. waaw am na. bii baas jàppale ko contact moo jàppale naa ko bu baax parce que tamit su ma doomu ndey la benn instant dañuy bëri mais man bu dul ko dul moom sax li may wax rek mbër yëpp la jam laa am ak ñoom ku ci am combat ma mën laa jàppale am naa yéene boobu sax dara man. moom moo souhaité woon nga jàppale ko wala yow yaa ko woon ko kaay mi jàppale la ko. non parce que dund nañ ko avant combat bi waaw chaque instant dañuy déggante dañuy waxtaan dañuy jóge lambu sax mu jël lambu ji may ma paas wala mu jël lambu ji ma ñibbi si mu yónnee ma ne ma ndekkil kon dundu nañ loolu avant combat bi. kon dund ngeen loolu yàgg ngeen tase di contact combat mi jàppale nga ko ci am ñoo xamante ne parfois ni muy waxee da leen di déranger am na ñu dem ba dafa réew. na nga gisee ni muy waxee wala nga gis ni dafa gëm boppam gisoo ci moom reewane. waaw xam nga rek ku ne ak ni ngay gisee mais xëy na man ni ma ko jàppee mooy dafa gëm boppam boo wax nag yombul parce que man mii li may wax sax ñi koy déglu ñoo mën a xam li mu doon. mais en tout cas man mënuma koo corriger si dara parce que ëpp ma koo xel bon sampion la tamit xëy na ñàkkul ñu koy conditionné ci wax teg ko ci. walla staff wax. xëy na erreur yooyu ñooñu ñoo koy mën a gis mais man suivant li may suivre si waxam sax bay gis erreur man bariwul. mais xamal nga ko réewande wala wala wala xamal. non wax dëgg xamaluma ko réewande xam na réewul te am na yi si nit yeeg doomu aadama lool daal mën naa ko ko seedeel waa carrément. oui. yéen moom parfois deret bu tàng la nekk xale ak gëm sa waa yooyu yëpp day am mais nag. doon xale mënu la tere doon kilifa tamit xëy na bu dee loolu ñuy wax dafa am wala ñu ngi koy sikki saka ñi ko gën a jege di contrôler ci moom loolu nañ si def bu baax jàngat xool bu dee am na ñu ñu dindi ko si parce que moom tamit doon na koo xam ne tey fu mu war a to fu mu toogati wax dafa war a doon lu ñëpp di déglu di ko rafetlu waa kenn waratul gis erreur am ci wax. loolu am na solo caaka léegi man laaj la tamit moom carrière am noo gisee moom Reug Reug parce que bëri simple bi wane ci boppam mi ngi wane boppam. ci lutte avec frappe bi waaye tamit song beneen beneen beneen carrière muy carrière MMA noo gisee rek. non amul erreur macha allah. noo rafet na rafet na macha allah. carrière am rafet na travail na ko ku gëm boppam la nangoo entraînement lu mu am si lambu de koo mérité. waaw parce que fekkante nañ équipe nationale maa ko fa dalal xam naa qualité yu bari si sport ànd nañ minti fois di sport kon nag lu mu am si lambu tey de koo mérité hmm. waaw waaw. <laughs> non loolu nag jotumaa woor parce que du ñuy ànd ci sëriñ xaw ma fi mu ñaan loo day aw nii may aw nii. mosul mosulaa daan nga nga nga mel ni da ngaa ba daan. mukk si àdduna loolu mosumaa dal si lamb. nit mosulaa jékku ci gàll. non non. est-ce que nekk roi des bu baax am na talent bi am na succès bi te am na gëm-gëm bi liggéey na ko waaw. ah mais nekk loolu du problème lamb moom ku ko suivre ba dugg ci xam nga ne kuy moom beneen affaire la mais nag da def comme ñëpp parce que ñi ko fi doon ay nit lañ comme ñun rek yàlla moo mayul yemale waaw. Serigne Ndiaye laaj naa la ko sànq mais fàtte lu ma la fàtte laaj moom tamit noo gisee carrière am ci lutte avec frappe bi espoir la écurie Fass la nan la mën a sàmmee loolu noonu ba liñ koy jiiñ mu jafewul si moom parce que am na ku mel ni suñu papay Moustapha Guèye ñu ngi koy gis si wetam toujours boo waxee écurie rek moom am na lépp. lu si manqué si moom la mais yaakaar naa ne bu dégloo ñooñu di li mu bëgg si lambu ak luy nit di doon si lamb bu si war si kam nekkee dina ko am waaw. général Malek ñaata yoon ngeen. général daan naa ko six fois mu daan ma deux fois ñu ma benn yoon mu gagné ma par point chef de l'état te boobu sax dañ leen a gagné par équipe 3-0 ñuy bëri ma ne comme gagné naa dootuma réew ma bopp. boole ko lamb ji jël avertisement génni. obeli kooku nag moom tamit xam nga man yooyu gars yi ñoo koy lijjante mais man wóor na yàlla du may daan nit sax ba xool la waaw man yooyu concerné wu ma mais nag gis naa benn instant lu coor mbalka maak muy def benn vidéo daaw gaa ah, waxuma ne li mu wax am na sax wala war na koo wax mais dinaa si déggal tuuti quoi parce que mbor yi ñu bari dañuy toog ci seen site yi nga laaj leen dama koy seetaan mbor yu bari du ma du seen tur yaag diw mu ne daan ñooto loolu ñu daanante te mën nga ko daan sax lu ëpp dix fois mais man dama yaakaar ne loolu amul solo parce que fu ngeen bëre lu mot ay millions yi doomu aadama ñu nga fa toog di seetaan kon nag jarul miim to daan ma fukkii yoon taxul ma d'accord ne mën nga ma waaw de may faa it rek pour feyu daan la vingt fois man noonu laay dunee lambu mais nag boo ma daanee téeméeri yoon tamit fu micro boo ma mën na talal su ma ko jàppee ma ne la diw daan na ma temps déranger wu ma waaw. booy booy bawal bi xaw ma bawal xaw ma ngunjaan ngel jon kooku li ñu bëre bari na trop moom tam maa ëpp lu ma ko daan mais pour ma sutel la ko il faut ma toog di kon mais moom tamit dañ ko gëj a gis léegi day raar ci bëre simple. moom bandi la nag moom temps yi gis naa ko bi corona bu méttee maa ngi doon waaja dem sax mu jël ma menee bar mu bañ. waaw muy door ay karo yu rafet wax dëgg bëggoon naa dem jàngi si moom sax mu bañ ko waa. waaw. <laughs> bañ ngay waa xam naa wala mu may siis métier bi quoi parce que corona bi tam def ñu corriger si benn instant mag yi daan nañ wax ne lambu du métier da nga koy boole ak dara mais wax dëgg war nañu yee ñun mbor yi yëpp ak mbor yi so ñëpp ñuy xale yi soog a suivre lambu sax xam ne li ñu doon wax dëgg la. ku la yar sa yaay sa papa sa maam sa nijaay. su ma moom amoo xanaa. <laughs> moo ma yar ak suma yaay ñoo ma yar si ñoom laa juddoo. ñu yar ma ba nii ma tollu wax dëgg suma papa maa ngi koy ñaanal moom tamit yàlla xare ko arjana parce que wàcc na liggéey at yee ñu passé mu bëggoon ma trop am lu ma ko jaraloon mais man mën naa ne yàlla sax moo ma yar parce que moom bi ma fàttalikoo ba tey mosumaa door to mosumaa def dara ñëw mu ne ma li nga def baaxul waa depuis ma doon xale ba nii kenn mosumaa door wala ñu corriger ma chaque jour ci li ma war laay nekk to lu ma def bu fa kenn nekkul tam bu ñu ñëwee dañ ànd Adama Diouf sa la war <laughs> suma idole la suma référence la suma lépp la waa carrément dama koy suivre dañuy déggante may déglu conseil am waa wax dëgg moom tam mu doon ku may jàppale si lu bari ci conseil ak lépp mais leen rek boo ko yàq ginaar moom mënoo ko bokk ak moom. nee na kii élevage. moom loolooy problème am bu ko jàppee day tëju si nekk doo ko gis. Ah. wala boo koy woo mu mu la ba pare. Ah. ginaar moom ko bokk. moom ginaar Diouf la sant si moom. ginaar Diouf la sant si moom. mais sa idole la parce que. suma idole la suma référence la. ñoo bokk fu ñu juddoondoo ñoom ñoo tax ñu bugg am amour bu ñu am si lamb parce que bi ñuy débuté ñoom ñuy def ay raw rawgadu ay léger yo boobu xaw ma woon ne sax dinaa doon ay mbor ñu ngi doon dox ay kilomètres yu bari di leen seetaan at boobu kanto ganjaay bi bari woon trop ay mbor. boobu rawga di foofu dafa bari woon ñu mel ni ñoon aadama Diouf ñooñu ak génération am ñoon Jibi Gandiaye ñoon Bal benn grand bu dëkkoon nag mënoon a bëre moom tamit génération boobu amul woon ni laar rawgadu bu xesoon a jot ba poids lourd chaque jour gën tuuti dinañ dox plus de dix kilomètres wàlli lamb pour ñoom. na solo ma laaj la tamit ci ci ci ki nga xamante ne moom mooy Bébé Diène moom tamit nekkoon seen biir nekk champion. yàlla teg ko natt booba ak moom tamit lan nga mën a wax ci moom lan ngay wax waa axlu lamb ci kaawu Bébé Diène waaw Bébé nag kaam dinaa koy dégg nii rek déggoon naa ñu koy jiiñ affaire u téléphone ba ñu tee woon ko yàggul ma déggaat ko ci ay yeneen mbir xaw ma nag ndax am na wala amul parce que moom si lambu rek la ñuy tase moom tam sampion la mais bu dee dafa am tamit juum na bu dee moo ko tey wala teyu ko ñu ngi koy ñaanal daal axlu lambu yëpp ñaanal ko yàlla baaxal ko dindi loolu si boppam ba mu ñëwaat si lamb ji génn fa mu nekk tamit parce que dafa bokk si lamb te am na si avenir waaw moo sori foofu carrément yàlla fogu xelam ba dootul nekk ci yoo xam ne sax nit dina ko ne li nga ma def neexuma waaw. ok loolu am na solo lutte olympique ak lutte simple bi ban différence la am. ak bari ak bari xam naa ne pour ma wax la ko. yàlla defaaroon def rek ñu organiser ko Sénégal nga dem seetaani ko waaw wala buñ koy organiser nga àndoon ak athlètes yi wala délégation bi dem seetaan ko am na différence bu baax a baax parce que bon lambu tubaab daal laa ko mën a tudde amul ngémbu amul jàpp ngémbu amul zone défendre amul leneen action réaction da ngay sol dal waaw dal yi sax xëy na boo ma betuloon nii mën naa la woon dal yi parce que maa ngi su may dal kër ga waaw. foo ko jàngee yow ba man laa ko jàng su ma la ne 10 jours laa ko préparé dem am médaille d'argent France doo ko gëm mais tubaab bi sax da leen jaaxal. billaahi 10 jours laa ko pratiqué dem daan ay champion ba finaal ñu gagné ma te xaw ma sax ni ñuy marqué point parfois damay def erreur sax ba su may ko su yooxu ma ma dawaat jóg. bilaahi. demoon nga fi Maroc yaakaar naa ak Papa Sow ak kan. waaw demoon naa fi Maroc Papa Sow 2016 lañ demoon mais bi Maroc maak Anta Samb ñoo fa nekkoon stage feebar bi faw ñëw ñu rapporté woon compétition ba mais dégg naa ñuy wax ne jàppaat nañ ko xaw ma exactement ban bés la mais yàggatul incha allah waaw. yaakaar nga am naa yaakaar bi. mas nga ko andi wala masu ko. non non non non CEDEAO laa am médaille d'or mais olympique moom ay médaille d'argent boros laay am parce que def ñuy jafe trop mais bi yoon nag gagné médaille d'or bi moo ma soxal parce que participer aux olympiques dafa doon loo xam ne bëgg naa ko marqué ci sumay carrière. dañ leen ëppal doole wala dañ leen gën a maîtriser affaire dañ ñu ko gën a maîtriser rek parce que ñoom ni ñuy bëree nii suñu làmb ji ñoom noonu la ñuy bëree olympique waa ci andi mënul daan nit. ñoom depuis tout tànk lañ leen ciy dugal ci santar yi bu compétition di waaj ñoom dañuy am sax at parfois stage Europe wala Amérique wala biir gari dëkk yooyu xam nga boo ñëwee ñoom du doole wala condition lañ lay daane mais ci finition bi souvent foofu lañu lay gañee waaw. Papa Sow bi nga ko bi nga ko nekkee foofu noonu nan ko gisee woon loo xamante ne mosu ko def ñu xëy ko foofu noonu nan nga ko gisee woon. noo jàmbaar la moom tamit champion la. dinaa ko nuyu au passage ak seen groupe ba parce que suma référence la nit ku baax la nit ku baaxee na moom man xawuma ko Sénégal dara dérangé wu ko mën a yar xale di la teg si kot mënoo mësumaa gis fu mu mere wax dëgg carrément moom tamit jom dem wone jom ak fula ak fayda bëre ci bëre bu mucc ayib xëy na yàlla mayu koo médaille mais après première compétition day métti même suñu lamb ji sax première compétition nga génn ci day day métti quoi mais wax dëgg da ngay tamit boo ñëpp xam ne boo ñëwaatee da ngay gagné waaw. kon moom am na qualité yoo gis ci moom ci côté bëre yoo xamante ne foogoo ko. waaw carrément parce que bi mu ñëwee regroupement xalaatuma woon ne sax mën na dem compétition wala di di dina dina soobu ci lambu ji bay dem compétition boobu amitié lañ doon tase di entraîner noonu ba groupement jot xaw ma woon ne sax dina am jomu tenir entraînement wala. ñëw entraînement sax di kii regroupement ak métit ba fa nekk ak entraînement ya ak entraînement noobul li nekk si suñu lamb ji parce que noobul laa koy tuddee ba di ko maîtriser bay dem compétition waaw. mu ñëw nga nekk Thiès nga gis ni daal kii nitu neen. la wax dëgg ku baax ku baax yaatu du mer bilaahi ba pare benn fan rek boo ko yëndee ak moom doon borom xel mën nga jëlee ci moom loo xam ne yu bari da ngay dem ba tollu foofu sax génn ci to doo laaj te conseil. carrément jàng voilà jàng naa loolu si moom lu bari wax dëgg fa yàlla. macha allah kontaan naa ci yow looy tàggatoo ba ba nga xam date bi ñu ñëw jël si la entraînement ni nga koy waajale ba Thiès sax ñu topp la fa incha allah. allah maa gën a kontaan di ñaanal ñëpp jàmm waa saal bi yëpp ak borom saal bi. Mamaya am na combat de am na combat digganteem ak kii Kara Dollé Mamaya. kooku suñu combat la ñun waa Tëngéej liñ ciy pare duñ ko wax kenn mais incha allah bu laajtee bakkan sax dinañ ko def. rip lu romb tax rip sax waa jaral nañu ko te incha allah dinañ ko def sans wax ko nii si télé bi mais dinañ ko liggéey suñu biir ba incha allah combat ba ñu ñëw gagné ko ak keneen parce que kooku taxu ko jóg xam naa loolu si moom xam naa talaa am waaw. entraînement ñeme na ko. moo dax a ne Sénégal xëy na nag yàlla mooy maye parfois tamit di nga nekk si guddi yoo xam ne di nga yaakaar ne yàlla di laa fàtte ba boo gëmul yàlla dégg wax ni wulli mais xam naa ne ku ko daxa entraîné amul Sénégal waaw voilà <laughs> merci Lamine amal jàmm bu baax. Jam Pro présente le combat de choc le 7 mars en Gambie. mbokk yi jameekee moom moo ñu mars foofee ca Gambie combat bu mag bi war a am ci diggante building ak Boy Balla drapeau Rocky Malick maire bu Banjul. bébé xar ñu fa jàkkaarloo ak amical mu nekk drapeau Idrissa Ndiaye surtout ak Daour Mbaye Malien bu baara war faa jàkkarloo ak Ama Baldé bu Serekunda drapeau Pape Malick Doumbia Reug Reug war faa jàkkaarloo ak Lion drapeau Mouvement Action gaz dina fa jàkkaarloo ak boy nawek volume dina fa jàkkaarloo ak T-Max waaye bébé soldaaru baay dina fa jàkkaarloo ak bébé kolobaan artiste yi tamit kombaam ak ninki nanka ci bës boobu la waaye mbokk yi jameekee yemu fa ndax face to bi war a am ci diggante Leket ak France dinañ ko xaar ci bés bi Balla Junior ak Eumeu Sène dinañu fa jàkkaarloo waaye invité d'honneur bi jameekee mu ne le ministre des sports Matar Ba le président du CNG Bira Sène honorable député Fada Diène itamit ci invité yi la bokk ki nga xamante ne nii moom mooy Mbaye Ngom di directeur cœur de ville bu Kaolack association des promoteurs de lutte au Sénégal mbokk yi dugg bi ñaata la jamee kenn tribune VIP 300 dalasi tribune amateur 200 tribune supporter 100 dalasi sponsor leader BMG Property Helcom automobile White House Residence Nice Am Sit by Pullo waaye yemu ca jamaïcain dina ci sargal doomu Sénégal bi l'international sénégalais Papis Demba Cissé cëy la 7 mars foofee ca bi